mais on ne ku ci nekk am nga droit créer sa parti wante parti yëpp waruñu am traitement bu méngoo parti yi nga xam ne dañoo am représentation sa assemblée nationale ñooñu dañoo am statut bu particulier. trouver une de individus hein, buñ koy méngaleeg yeneen parti yi nga xam ne amuñu fa représentation war nañu ut pexe daal ngir wàññi parti politique yi ñu def ab segg jaarale ko ci histoire ci doctrine wala orientation parti yi li ma ci dolli rek mooy nangu naa ñu amal saytu wante nañ ko def ci esprit démocratique xool li nga xam ne mooy sensu nekk parti politique maanaam conviction wala projet de société wala sax ab programme. Euh, la démocratie, un parti politique, c'est-à-dire une conviction, euh, euh, euh, une vision, un projet de société, un programme.